الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala borom boobu nga xam ni moo ñu wàcceel diine ji daal di ciy def lépp loo xam ni suñu njëriñu àdduna ma nga ca ak suñu njëriñu allaxira moo ñu wàcceel ab téeréem wàcce ko ci ab yonentam sallallahu alayhi wa sallam mu bokk ca la mu wàcce ca téere boobu mooy ay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm ragal leen yàlla ni yàlla yeyoo ñu ragal ko ko bu leen dee lu dul fekk da ngeen a jébbalul seen boroom waaye suñu boroom teg ca ni yéen ñépp bokk leen mooy ci la nga xam ne mooy buumug yàlla gi buumug yàlla googu nga xam ne mooy alxuraan ak sunna yéen ñépp bokk leen ci mooy ca mooy ci li nga xam ne mooy teqali ko xam leen ni avant alquran ak sunna di ñëw yéen ñépp yéen a ngi nekkoon ñu teqali ko ci buntu paxu sawara sunu borom yàlla musal leen ca boole seeni xol loolu mbokk di xiiwal gi rëy bokk ci xiiwal yi gën a rëy yi yàlla subhanahu wa taala defal jullit ñi ci kaw suuf ca mooy boole seeni jëmm waaye boole seeni xol lu tax la nga xam ne ñoo ko bokk gëm ak la nga xam ne ñoo ko bokk di jëf mbokk lislaam ci noonu it lañu suñu boroom tere mooy leen lépp luy jur juuyoo ci seen diggante bu leen mel ne ñooñu nga xam ne teqalikoo nañu juuyoo nañu gannaaw ba leen lay yu leer dikkali ndax ñooñu bëggal bu tar da leen di ñeel bal suñu borom subhanahu wa taala mu ni jaam yi day duñ deñ di teqali ko illa man rahima rabbuk lu dul ña sa borom yërëm ñooñu day duñu teqali ko ndax ña ngay mooy ca mbooloo ma yàlla gërëm ca mbooloo moomu mooy mbooloom alquran ak sunna ay yéen bokk julit xam leen ni bokk na musiba boo xam ne daf na julit ñi ca mooy musiba teqaliko teqaliko boobee feeñ na ci doxalinu diine ci boo ñëwoon tey dëkk bu mel ne Sénégal ñaata këri diine nga fay fekk loolu di wax boo xam ne ñépp a koy wax këri diine yi mu mel na ñun yàlla dañoo tànnal juróom-ñaar fukki diine ca mbokk suñu diine bii di benn diine suñu borom mu ne inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbakum fa'budu benn diine ngeen am man may seen borom jaamu leen ma waaye teqalee nañu ku nekk créé na lam jàpp ne mooy yoon ba gën a baax yoon ba gën a gaaw yoon ba gën a kawe pour jural la ngërëmal yàlla yoon boobu it ca la ñu gis sunu mbokk politiciens yi jaar ci xooma këri diine yeeg këri politiciens yi ban moo gën a bari ñu ngi la Sénégal am nañ plus de deux cent quatre-vingts partis bañ demee ba waxtaan seen biir bu juboo sax teewul créé nañ quarante sept coalition ci réew mu ndaw mu mel ni nga xam ne quatre vingt quinze à quatre vingt dix sept pour cent ñoo bokk lu ñu gëm mbokk yooyu nañu xam ne dafa dab l'islam bi bokkul ci l'islam islam day ba mu ñëwee ñàkk a gëm dalee na boole ñu war a bokk lu ñu bëgg war a bokk programme suñu borom yàlla tëral ne waa quartier bu ne dee leen daje juróomi yoon ci bés bu nekk nemmi konte bokki sàppe ànd taxaw seen kanamu borom ñaan ko seen soxla waaye semaine bi it ña nga xam ne ñoo gën a sori lañu ñëw ñu daje ca jumaa ya noonu la koy gën a yaatale ca bisu iid ya mboolem jurit yi dëkk penku jant ak sowwu jant mu jox leen benn rendez-vous rendez-vous boobee nekk ca Makka ñépp war a daje bisu Arafa ak foo mën a jóge ci kaw suuf loolu lépp di mandargaal bennoo boo xam ne jullit yi ñoo ko war a bennoo bennoo bu ñu war a bennoo ci programme bennoo bu ñu war a bennoo ci jubluwaay bennoo bu ñu war a bennoo jëm ci seen borom donte ne boo ñëwoon Sénégal ana ñaata bennoo lañ fi dégg ala kulli xaal mbokk nañu xam ne yooyu mbir la moo xam ne nii boo am la boo xam ni ñëw na feeñe ci doxalin yi waaye mu bokk lu ca grave lool loolu bu demee ba yegg ci biir xol ya loolu mbokk musiba la boo xam ne nii bu jéggi dayoo la suñu borom yàlla subhanahu wa taala ba muy ŋàññi ahlul kitaab bokk na lu mu leen ŋàññe mu ne ñoom de boo leen gisee ñi ngi nekk mbooloo ànd waaye seeni xol dañoo teqali ko yàlla ŋàññi leen ci loolu waaw ana nag tey buñ demee ba gis julit ñi ñëw non seulement ànd ñu ci mbooloo waaye seeni xolit daal di doon loo xam ne du teqali ko la loolu moo tax ba ku nekk ci ñun war a xoolaat boppam góorgóorlu bu baax mbokk julit julit heure bu ñu amee juuyoo ci aw doxalin ni ñu koy defee nañ xam ne doxalin bi du ne dañuy xooli ca ah libéralisme socialisme lu mu mën a doon ci doxalin waaye dañuy jëkk a xalaat moom moom mbir mi nga xam ne daa xew ci sunum réew programme bi ñu war a tëral lan la ca yàlla ak yeneen tub yàlla wax bañ demee ba am tontu ci loolu leneen luñ cay dolli day ñëw gannaaw loolu waaye ay jullit toujours la ñuy jiital ci lépp lu ñuy def mooy xool lan la ca seen borom yàlla bëgg loolu kon moo tax ba ñi ngi dund tey ci ay bis yoo xam ne dañ ko tuddee bis yu campagne électorale bokk na loo xam ne tubaab ba ko indi suñu réew mooy bis yoo xam ne nii lu neex waay wax ci gàttal lu neex waay rek waa daal di wax loolee am na ñoo xam ne jàpp nañ ni politique may na leen ñu jël seen mbokkus gor xas ko duural ko tuumaal ko ci loo xam ne lan moo ko waral parce que dama bokkul ak moom parti ba ma nekk bis bu ma demoon def loolu ñuy tuddee ay transhumance wëlbati ko dem ci partiem commencé di ko raxas di ko fóot di ko paase mboolem jukko yi gën a kawe ma teg ko ci kawam mbokk loolu du jukko lislaam bal du jukkoy ngor gañ xamee woon suñuy maam suñu maami ceddo yi lañ leen xamee woon bokk ci woon wax ñaari wax bokk ci woon la nga xam ne mooy fenet tuumaalu doonte ne loolu da ngay gis ne politique gu tey may na ko jurit ñi di ko def da ngay gis benn mbokk jurit bu lonkoo akob chrétien ñoo bokk parti bokk ndey ak baay daal di xas beneen mbokk jurit boo xam ne yàlla mën na def sax yéen a bokk dina yéen a bokk maam mais lan moo waral loolu c'est le terrain politique loolu dagan na fi mënees na koo def ngan la way julit xamal ne bépp doxalin boo xam ne day am ci kaw suuf yow da ngaa am fiite ba pare am programme ba pare mooy yow jaamu bi yàlla nga sañoo lu la neex wax sañoo lu la neex def bépp jëf boo xam ne yaa ngi ci jëm bokk na téere boo xam ne sunu maam yi ñi ngi ko doon jàng fii muy laxdari mooy du dagan ci julit mu def benn jëf xatta yaxku xatta yaalama xukma allahi fii lu dul mu jëkk xam ana lan la yàlla subhanahu wa taala atte ci loolu loolu nga la way ñu bàyyi ci xel bu baax yéen ñi nga xam ne tey jii ubbil nañ leen rajo yeeg télévision yi ñu ne am na quarante sept coalition yu xëccoo ku nekk am na minute yu ñu ko jox soo ko boolee mu jógee deux heures de temps boo xam ne lu ëpp ci ñoom dañuy tuumaalante seen biir pour jàpp ne loolu moo leen ci avancé lu ëpp ci ñoom ci opposition ya ña ngay ñaan guddeeg bëccëg état bi yor nguur gi di tarxiis di daanu ba loolu yi même bu doon Sénégal day tàkk sax jaral na leen ko pour ëllëg ñoom ñu mën a am lay bu ñu yéegee mbokk loolu jurit bul dugg ci loolu yow mi nga xam ne yaa leen di déglu sa borom yàlla nee na heure boo xam ne faasiq yi ñu ne ab xabaar nga la way yéen jullit ñi leerlu leen ko bala ñuy ne dal ci kaw nit ci erreur ca loolu mbokk faasiq bokkul ak yéeféer faasiq mooy jullit boo xam ne dafa doy bi ci wàllu diine ay du xool la nga xam ne moom lay wax du xool la muy toxal negam nag julit bu mel noonu la yàlla ne ay waxam lañ koy seet dañoo jëlale naafiq ba wala jëlale ka nga xam ne mooy yéeféer bi su ko defee ngalla waaye bul ne la nga liir ca journal ba dégg ko ca rajo ba kilifa politicien wax ko jëmele ko ci mbokkum julit ngalla waaye bul gëm loolu bul bokk ci ñuy toxal loolu abadan bal bu dee ay tuumaal la bañ ko ba baa nga cee am prévu leer soo ci amee prévu leer it nekkul di wëlbati ko di xastaatee ka tasaare bal soo mënee gis ka def njuumte ba nga laayu ko biir xayrun soo ko munte def nga la waay nga téye ci salam bi sunu borom yàlla mu ne ñi nga xam ne seen jubluwaay mooy tasaare la nga xam ne mooy mbon ci biir julit ñi ak tasaare seen ayib ñii day mbugal bu tar dana leen ñeel la nga xam ne mooy ci àdduna ak ci àllaaxira yàlla mu ne man maay ngi xam yéen nekku leen aji di aji xam mbokk julit suñu borom yàlla may na la benn xéewal bu rëy muy xéewalu lammi waaye paaka ñaari boor la paaka la boo xam ne nam la mën a rendile la la mën a rende yow sa bopp loolu yow julit ngeen bàyyi ko xel bu baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal ñu wax ne ngal na waaye kenn ci yéen ku gëm yàlla gëm bis penc nay seet lu baax mu koy wax su amul lu baax lu wax mu noppi mu ñëw ci buxaari muslim abi hurayra nee na yonent bi alayhi salaam nee na benn waay di dana wax benn wax jàppul sax ne wax na lu garaaw waaye wax boobu daañ ko ci tàbbal biir sawara ci diir bu toll ne penku ak sowu yaatuwaay penku ak sowu daañ ko roof lu toll noonu ci biir sawara ban trimisi ba mu koy solo daf ne loole da ngay gis ne daañ ko dugal ci la nga xam ne nii moom mooy ci biir sawara loo xam ne dana nekk nangami nangam ci ay at loolu mbokk di mbir boo xam ne ku nekk ci ñun na ci bàyyi xel rawatina nettali rawatina tuxal suñu borom subhanahu wa taala nattoo nañu loo xam ne suñu bàyyi xamuñu ko woon waxuma suñu maam yi ca mooy portable yi nekk ci poosu góor ñi poosu jigéen ñi poosu kaw-kaw yi poosu waataax yi nga xam ne lu ne lañ ciy doxal ci ay xabaar xabaar yoo xam ne day taw nit ñi duñu am jotug di ko mën a vérifier lu bari ci ñoom loolu mooy alimenter seen grand place mooy wax nañu nee nañu wax nañu nee nañu yonent bi alei salatu wasalaam nee na kafa bil mari isman an yuhaddisa bi kulli ma samia aka doy doomu aadama bi ci bakkaar mooy lu mu dégg rek ngeen ci du ko ñeneen bokk na ci musiba diine lu bari ci nit ñi mooy la yonent bi alei salaam waxoon yàlla day bañ na ci yéen la nga xam ne moom mooy ah wax nañu nee nañu ak la nga xam ne mooy bari di ñaan ak la nga xam ne mooy yàq alal su ko defee loolu mbokk mbir la yoo xam ne na am lu neex la waaye xamal ne kat doomu aadama mën naa sos aw fenam sos aw musibaam yow nga jël ko di ko commentaire di ko toxal ba loolee tabbal la ci musiba boo xamee ne nii mën na laa alak adduna ak alaxira xoolal keroog ba ñu duuralee su neeyi Aysa lañ ko duural am na julit ñu bari ñoo xam ne sosuñu ko duural luñ ko waaye dañ caa nekkoon di wax di commentaire sunu borom yàlla subhanahu wa taala ŋaññi leen ci loolu mooy ista wa wa taquluuna bi alsinatikum ma laysa mi ngi noonu istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluuna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa taxsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim yéen a ngi nekk di joxalente wax di ko tasaare jàpp ne loolu du dara et pourtant loolu lu màgg la ci yàlla mbokku julit xamal ni dafa xaraam ci yow sa derutu mbokk julit dafa xaraam ci yow sa alalu mbokk julit waaye dafa xaraam ci yow sa deru mbokk julit lu bëri ci doomu aadama yàlla musal na leen du ñu lekk alalu kenn yàlla musal na leen tuuruñu deruti kenn waaye ñu néew ci ñoom ñoo mucc ci ŋàññi derub keneen ca bokk na ci ŋàññub derub keneen mooy ñett li loo xam ne dañ ko koo waxal te yow amoo benn preuve boo xam ne am nga ko ci loolu loolu mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax mbokk suñu làmmiñ yaa ngi di xéewal bu ñu yàlla defal waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na heure boo xamee ni nii doomu aadama bi xëy na la nga xam ne mooy cir yi nekk ci moom yépp dana nekk di waxal làmmiñ nan ko ay làmmiñ ragalal yàlla ci ñun ñoo ngi topp sa gannaaw soo jubee daan jub boo dëngee daan dëng yonent bi alayhi salaam ne nit du jub lu dul xolam moo jub xol bi du jub lu dul làmmiñ moo jub looloo tax ba boo dellu woon ci doxaliinu mag ñu jiitu ñu sahabatul kiram ak borom xam-xam ya bokk na lañ gënoon a ragal mooy la nga xam ne moom mooy seen ayu làmmiñ mbokk suñu borom subhanahu wa taala dañoo wax mbir yu tiitlu mbir yooyu mooy lan borom bi nee na maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid amul benn kaddu buy génn ci yow lu dul malaaka yaa ngi pare di ko enregistré kaddu googu da nga ci rendre compte sa kanamu borom suñu borom subhanahu wa taala moom lay wax naan mu ndax jàpp nañ ne ñoom wax ya ñuy wax man du ma ko dégg suñu borom mu ne déedéet balaa wa rusuluna ladayhim yaktubuun suñu malaaka ña nga nekk ci ñoom li nga xam ne di doon ñuy enregistré loolu moo tax ba nañu góorgóorlu di jéem a wax lu baax di jéem a def lu baax jéem a suñu làmmiñ bi ñu koy utiliser te la nga xam ne danañu jural ngërëmal yàlla subhanahu wa taala ak a texe waajoo xam ni ma nga jël làmmiñam ba di ci def zikrullah fu mu mën a toll di jéggulu yàlla fu mu mën a toll di xalaat ay ayibam moom ci boppam avant muy ay xalaat ayibi ñeneen ñi di xalaat ay ayibam moom ci boppam di ñaan yàlla jéggal ko di ñaan yàlla suturaal ko fu mu mën a toll mbokk làmmiñ boobu day làmmiñu yiw la làmmiñu xéewal la boo xam ne ku nekk ci ñun war nañ ñaan yàlla defal ko làmmiñam mel noonu yàlla yàlla subhanahu wa taala defal ñu ko mbokk ñu delluwaat bàyyi xel ci ne lislaam day bëggul juyoo lislaam bëggul juyoo lislaam bëggul noono bal waxuma lislaam daf naan bu leen juyoo bu leen noono waaye lan lislaam gisoon heure boo xamee ne nii gis nañ ay mbooloo yoo xam ne dañoo juyoo seen biir ñu jéem a def ay pexe ba jubale leen suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne benn yiw day nekkul ca la ëpp ci li nit ñi di réunion xanaa lu dul ñoo xam ne ba ñuy réunion ñoo ngi réunion di digle ay sarax yu nit ñi war a génn ci ndimbal réunion ci digle lu baax réunion ci defar ay diggante yoo xam ne dafa yàqu woon suñu borom mu ne képp ko def lii day ca jublu ca la nga xam ne mooy ngërëmal yàlla yàlla mu ne danaa ko may yool yi gën a màgg ci yool yi suñu borom yàlla mu ne ragal leen yàlla te yéwénal la nga xam ne mooy diggante seeni mbokk ca loolu mbokk yàlla wax nañuy ragal yàlla di yéwénal di booloo loole la ëpp la ëpp ci la nga xam ne mooy politique bi bu ñëwee dafay dàq loolu indil bi safaanu loolu tey jii xëy na lu bari ci waa Ndakaaru sax am nañ ak yeewoote mais boo demoon ci kaw gi noonu yu rëy la fay am ndax yàlla dañoo bind société Sénégal muy société boo xam ne dafa ànd am ay kilifa dëkk yi am kilifa famille yi toppante ku ne warmaan sa morom amma bu coalition yi ñëw mbooloo mi far fi mbooloo mi far fi da ngay gis ñu bokk ndey ak bàyyi doon ay noonu gis bàyyi ak waay juróom doon ay noonu ñaari ñoo xam ne ñoo bokk benn borom kër kii far fii kii far fee ñu nekk ay noonu yooyu yépp mbokk woo da ngay gis ne mbir la yoo xam ne jullit bi war na ci bàyyi xel bàyyi xel noonu su dee ne yàlla nattu na la ngay dem di yëngu ci yooyu it xamal ne daa am lu jiitu politique bi ngay def politique bi ngay def la ko jiitu mooy diini islam bi ngay dund politique bi ngay def la ko jiitu mooy wax ja la yàlla santoon na la yéwénalal sa diggante ay jullit politique bii nga xam la ngay def la ko jiitu mooy jéem a xool naka la ñuy fexee ba moytu lépp luy jur fitna suñu borom subhanahu wa taala sant ñu ne yéen ñëpp ànd leen di dimbalante ci loo xam ne day jur njekk ak ragal yàlla waaye bu leen dimbalante mukk ci loo xam ne day jur noonoo ak la nga xam ne mooy ak mbañante su ko defee mbokk jullit dama bokk ca parti bi wala ngay bokk ca parti bi ba mu tax mukk tuumaalante am ba mu tax mukk noonu am bu la kenn yóbbaale ci loo xamee ne nii dafay jur sa merum borom subhanahu wa taala même boo ci am réussite suñu borom yàlla it wax ñu ne képp ci yéen na moytu fitna boo xam ne conséquences yi bu ñëwee du yem ca ña nga xam ne ñoo tooñ kese bal yonent bi alayhi salatu wasalaam daanañu sant ni ku gis si yéen lu bon na ko dindee ak loxoom su ko mënul na ca wax kem teleen kattanam su ko mënul mu daal ca jàpp làmmiñam jàpp ca xolam ca loolu mooy li gën a néew loolu moo tax ba mbokk lii nga xam ne mooy dal nañu ci sa sun fan yi ñu war koo dund kenn ci yéen ngalawaay balaa yëkkatib jéegoom jëm ca na xool jéego bii ndax ngërëmal yàlla ma nga ca balaa yëkkati kàddu di ca wax na xool ndax kàddu gi ngërëmal yàlla ma nga ca képp kum ciy bëgg na laaj boppam ndax kii bëggeel gi ma koy bëgg ngërëmal yàlla ma nga ca képp koo cay noonool jëkkal laaj sa bopp mu ndax kii li tax nga koy noonoo ndax ngërëmal yàlla mi ngi ci lii lépp mbokk julit da ca war a bàyyi xel ci kemtalaal kattanam te xam leen ne bokk na lu gën a rëy ci xiiwal gu yàlla defal ay jaam mooy may leen jàmm ca jàmm mi ngi jóge ci bëggante jàmm mi ngi jóge ci booloo mbokk teqalikoo day jur fitna xëccoo day tax néew doole ñu ngi loolu xëccoo suñu borom mu ne wala tanazau fa tafshalu xëccoo day jur néew doole doomu aadama yi lu ñu gën a ànd yàlla di gën a ànd ak ñoom doomu aadama yi lu ñu gën a ànd yàlla subhanahu wa taala di wàcc yërmande ci ñoom yeneen ci bàyyi salaam xamal nañu mbooloo la yërmande nekk teqalikoo la nga xam ne moo ca nekk moom mooy mbugal looloo tax ba mbokk nii nga xam ne noonu la ñu teqalikoo ci wàllu diine ji teqalikoo ko ci wàllu politique bi képp koo xam ne nii borom xalaat bu rafet nga ak borom ñaan nga war ngay ñaan yàlla subhanahu wa taala mu boole waat xoli sénégalais yi boole waat jëmale leen ca la leen di jëriñ ci seen wàllu diine boole waat jëmale leen ca la leen di jëriñ seen ah ca la nga xam ne mooy seen adduna ca loolu mbokk julit kenn mënu koo am lu dul na day fekke ne xol yi ànd nañu jëf yi ànd nañu mboolem bokk na borom xam-xam yu bari lañ daan tëje seen xutba mooy la suñu borom yàlla subhanahu wa taala di wax ne ay yéen julit ñi inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan yàlla day day digle la nga xam ne mooy maandu te ngan la waay ki nga far ak ki nga noonu bu mu tee nga maandu seen diggante suñu borom nee na maandul même bu dee sa jegeñaale la maandul même bu dee boo waxee dëgg mu dal ci say waajur teewul maandul ne suñu borom mi ngi digle maandu waaye mi ngi digle rafetal képp ko wax lu ñaaw jëme ci yow ngal la waaye fexeel yow bu ko tontu lu ñaaw loolu mu nekk dagg sante boo xamee ne nii tey jii sunu jeunesse bi jeunesse la boo xam ne nii bu jaaxle lañu bépp ndaw bu ciy déglu rajo ak télé da nga jaaxle président bi ñu ngi noonu truand la sàcc la def lu baax ña ànd ak président ñoom it opposition ñu wax leen lu nekk ba ndaw ñi dañuy jàpp ne mboolem mag ñi nekk ci réew mi ñëpp ba bokk loolu musiba la inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ay xale dañoo war a am ay référence gis ay ñoo xam ne ñoo leen jiitu nekk ci lu baax ñu xam lu baax lañ def ëllëg ñu mën caa jaar waaye tey sun ndaw ñiy déglu rajo ak télévision yi ana ban référence ci ñi nga xam ne ñoo jiite ak ñi nga xam ne ñooy xëccoo ana kan lañ ci mën a def référence ndax amul kenn ci ñoom lu dul xas nañ ko tilimal nañ ko loolee nga la waay bokk julit bul bokk ci loolu bokkul ci ñuy tere loolu del wax te yàlla tax del jëf te yàlla tax suñu borom yàlla mu ne itamit xam leen ne yàlla day bañ ne fahsha wal munkar wal baxi lépp loo xam ne day jur ay jukko yu ñaaw lépp loo jur luy jur noonu lépp loo xam ne day jur ak bew ci diggante nit ñi lii day sunu borom yàlla bañ ne ko ci ay jaamam yàlla yàlla delloo ñu ci njàngaleem alquran ak sunna yàlla yàlla boole xolu waa Sénégal boole leen ci ñu bëgg la yàlla subhanahu wa taala bëgg boole leen ci ñu bañ la yàlla subhanahu wa taala bañ képp ku ñuy àndal yàlla ñu yàlla wërsëgal ñu yàlla rek a tax ñu ànd ak moom képp ku ñuy noonal yàlla yàlla wërsëgal ñu fekk yàlla rek moo tax ñu noonu ak moom lépp loo xam ne nii yiw la yàlla yàlla teeta ci suñuy xol ba yàlla defal ñu yiwu adduna ak yiwu àllaaxira lépp loo xam ne fitna la yàlla yàlla sorul ko suñu réew ñëpp ñoo xam ne dañ fiy nekk di woote yàlla yàlla jubal seen xol ñu woo mbooloo mi ca la nga xam ne seen njëriñ ca la nekk yàlla yàlla wàcce jàmm ci réew mi wàcce ko ci réewu julit yi mboolem julit fu mu nekk ci am fa jafe-jafe yàlla ko gën a xam yàlla yàlla teggil ko ko remplacer ko ko la nga xam ne mooy al afiya yàlla yàlla rafetal suñu mucc boole ñu ci ajjanaam yu kawe ya allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin